bismillahi rahmaani rahiim la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du nuhayyikum bi tahiyyati islamiyya naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu santaate yàlla julli ci Seydina Muhammad ñaan yàlla borom subhanahu wa taala ma ñu fi dëgg-dëgg jullit yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar xéer ñu ci waaye soppaloo ñu jooju di soppeem boobu di xaritam Muhammad xam ne jullit ci waxamul pertement yàlla ñu yàlla may xel ak kattan ak làmmiñ bi ñu jullee ci Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu di ziara xalifatul am Sëriñ Babacar Sy Mansour atala umruhu wa ayadahu nasara yal na yàlla dolli guddal faral yal na yàlla ko yal na yàlla ko mission maam mi mu nekk mission baayam yal na yàlla jàppale ci boo fa tabarakallahu jumaa ji mu sumb di ko ziyaar di ko ñaanal rek yal na ko yal na yàlla ko yal wattu ko yal na yàlla dolli ko càppale wa tabarakallahu ci liggéeyu maamam wa liggéeyu baayam waaye fa tabarakallahu lépp jëm ci borom bi wa taala di ko ñaanal rek ñu mën ren bu dawle yàlla mën ko raw yàlla gën a guddal fan ak mboolem xalifa généraux yi ne ci ko ñaanal yal na yàlla xalif dem ba cene ba jóge ba Medina Baye jóge na Medina Baay dem ba Léona jóge Léona dem ba Thiénaba jóge Thiénaba dem ba Yoof bàyyiwuñu benn xalifa dem ba Daaka fa tabarakallahu di nuyu mboolem xalifa ci kaw suuf yëpp di leen ñaan yàlla yàlla yàlla doolu dëgëral di ñaan yàlla yàlla yàlla doolu ci réew mi jàmm yàlla yàlla doolu ci réew mi jàmm président de la République du ko ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi ci réew mi te réew mi tax réew mi la réew kenn ku ne yaa xam ne ngay xëcc bu gën a ci yoon yàlla jox la ko ndax doomu aadama toujours muy ñaan na fekk mu gën ci moom li ngay ñaan na kenn bu gënee ci jox la ko waaye nag muy ndama réew di barke réew mi di jëlmel ne réew fu mu nekk jëmale ko foo xam ne moo gën a baax fu mu nekk tey fa tabarakallahu di leen ziyaare ci weeru tedd bi di leen baalwaq ci weeru tedd bi di leen masu coono di weeru Seydina Muhammad fa tabarakallahu ñu jógee ci gàmmu Tiwaawan yàggul lool ñu def gàmmu Ndiassane yàggul lool gars yi gàmmuwaat kon tabarakallah yal na yàlla nangu gàmmu yëpp bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni Sénégal yi la aada woon mooy mbaaxam mbaaxam mooy dal mbaaxam mooy alxuraan mbaaxam mooy bëgg Seydina Muhammad buñ ko bàyyee rek perte nañ boo xoolee fan yi màggal ñëpp ñoo ngi sonn loo jëm màggal ngir màggal moom borom waaye lépp di màggal ki xam ne yàlla nangul na ab jaamam wa tabaarakallahu di màggal ak ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad tabarakallahu Sénégal yëpp jugandoo ñëpp defandoo ko tabarakallahu xalifa bi tamit tabarakallahu xool ñu xam-xam bi yaatoo ni xam-xam bi rafetee ni xam-xam bi sellee xam ne jotagul pour ñu daje bandoo biir teewam mu ni kenn ku ne mun nga toog fi nga toog nga màggale fa Seydina Muhammad fa tabarakallahu nga xam ni kon lépp yiw la Seydina Muhammad li sama sédagement waxoon mos nekk ne ala azimu laylal wilaade xisbatan isaran yokon naawal xalaami odul kon mel ni kon ngante am na ci biir Tiwaawan pour ñu dajale koo fa donte du feebar bi am na yeneen ngante yoo xam ni nit ñi dajale koo fa sànce yi ay xale ñëw fa taxaw fa daanu fa damm wala ñu dee fa kon kan mooy responsabilité bi kon Serigne Babacar Sy Mansour mooy responsabilité bi moo tax te kullukum raa'in wa kullu mas'uulun an ra'iyyatihi sàmm bu ne ko yoom xeewatee yàlla dana laaj ni nga doon sàmmee ni nga ko doon ni nga ko doon téye te yaakaar naa bu gaa yi ñëwoon ci waaw tamit ba xale dama fa wala xale wala naka naka suuf noonu kenn ñaanu ko yàlla waaye nag prévenir mieux que prévenir mieux que venir nit kii da ngay prévoir lu ñëwagul waaye doo bàyyi mu ni kët ni jot nga ni bu ñu yëgoon xalifa bi nag loolu la xalaat loolu la yaakaar sànc yi tabarakallahu nit ñi dajale ko xam bagage yi alalu jaamur yi nit ñi ñëw fa jël ko te am ñoo xam ne bu ñu ñëwee ñii dañuy gàmm waaye ñii dañuy raas dóob bu ma xalaatee ci xam-xamam bu yaatu bi xalaat ci intellectuel bu bu yaatu dana yàlla gën guddal ko faram xalaat ci liggéeyu mag xalaat ci nekk fi mag ñi bàyyee nga xam ne fa tabarakallahu yàlla yàlla gën a guddal faram yàlla yàlla gën a sàmm ko bu ma xalaatee loolu lépp nag mu ne kenn ku ne toog fi nga nekk nga gàmmu ko fa ba yàlla def incha allah rabbi li ñuy service bi tawam ak yeneen yooyu bu matee kenn ku ne ñëwaat bi taaw gàmmu si ndax gàmm fu waaye liggéey rek war nga faa mën a gàmm wala laaj maa ngi wax ne isa lam yakun xisbatan yàlla rek a tax nit nag boo def yàlla rek tax du Tiwaawan rek ko war defee na nga defee Pikine na nga defee Ziguinchor na nga defee Matam ndax xisbatan la laaj maa ngi wax isa lam yakun naawal xaraam adoolu boo ci nee def lépp loo xam ne yàlla gërëm ko nee nañ ci maamu te toog fi nga toog te bañ a ñëw kon xalifa bi yàlla yàlla gën ko dal fanam di ziyaare nag di baaba àq nag mbooleem population Sénégal mbooleem këru diine mbooleem kilifa fa tabaraka allahu nit li li suñu njëkk may waxoon rek nit gis-gis yi mën na wuute waaye fa tabarakallah taxul ñu nekk ay noonu et Sénégal la léegi nag dañuy ragal loolu bu nit gis yi wuuteeg nit gis-gis rek ñuy noonam la déedéet nit ak ma aadama mën nañu wuute gis-gis te du doon noonam waaye boo seetee bu kii waxee li kii wax lii rek ñuy def ko contre loolu du contrôlé mais kenn ku nekk gis te kenn ku ne yàlla may na la xel ngay xalaat wala mën a wax ndax yaa dafa ni yaa ulul koo nit am na droit am na droit comme yàlla moo bàyyi nit yi xel boppam mu ciy xalaat kon doomu aadama war na bàyyi moroom doomu aadama tamit mu joxe avis du joxe xalaatam waaye li ñu Sénégal dañoo ragal dañoo ragal débat d'idées fi mu nekk ni mu ñu débat d'idées boo indiwoon benn aaya tey wala benn waxuma tey ne lii de la ma tax ma ngi wax ko ñu ne ma ngay diingat waru koo wax bu fekkee ne du loolu nit da nga war a am war am esprit humanité fexe noonu dimbalee doomu aadama yi waaye que ne la seen si waxoon ni ku war a jiite réew waroon nañu ab koñ di la téye kon daanaka waaye yéen yàlla gën a guddal fan yéen yàlla gën a sàmm di màgg ñëpp nag di ziyaara ñëpp ci weeru tëdd bi di weeru Seydina Muhammad ala yàlla wax na ko azim bihi wa bi yawmihi wa bi aamihi wa huwa dalil nee na màggaleel bis bi Seydina Muhammad juddoo màggaleel weer bu mu juddoo màggaleel at bu mu juddoo ñu ne ko lu tax mu ne parce que Seydina Muhammad exemplaire la. yàllaa ko ñu nga wax wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaaha wal yawmal aaxir alaaj maa ni kon tagg na rasulullahi màgg na rasulullah ñu tax mu ne parce que yàllaa ko ñu ko tagg na romu sanaa al musawa baal ma ata baal ma ata sana min haadi jalil jamil bi yàlla mi taaroo yàlla mi rafet yàlla mi màgg moo njëkk a tagg Seydina Muhammad kon tagg na Seydina Muhammad bàkk na Seydina Muhammad wax leen ay jikkoom yu rafet ba doomu aadama yi di ko di ko roy wax leen yi mu doon def ci yu baax wax leen ni mu doon jékkale xoolal ma sama kàttan bi ma amoon waxuma sax saxaaba yi ko wóoroon ci saxaaba yi ko wóoroon nekk ay saxaaba yoo xam ne war nañ mën di xeex boo tooñee Rasulullah mais ngelaw li biir biy métti bopp biy métti tànk biy métti bët biy métti loxo biy métti yëpp ay arme Seydina la yoon bu mu ci waxoon ne ko dama nga song diw mu song diw waaye nag du fantu mukk wa kaana asjaa annaasa ahsanahum xal-xal waxul xal la alaaj maa ne wax moo gën a nekk jàmbaar doomu aadama yi moo la gën a rafet ci jikko moo la gën a rafet ci bind nga xam ne kon kooku du kenn ki la gën a doon jàmbaar nag yàlla moo njëkk wax ni inna allaha laysa bi zalamin lil abidi man yàlla dama toon jaami te Moustapha nag ci yàlla la jëlee jikko yàlla la yor moo tax moom daawu tooñ te boo ko tooñee mu jéggal la wa kaana ashjaa annaas wa kaana ashjaa annaas ahsanahum xalqan wa xuluqan moo gën a nekk jàmbaar nit ñi foofu waaye nag moo leen gën a rafet jikko waaye moo leen gën a rafet bind waaye daawul tooñ te boo ko tooñee mu jéggal xoolaa wala xoolaa ba ah ki xool Abu Jahl rek kala ñu ànd ki nga xam ne mooy Malik ibn Dinar romb Seydina Muhammad Seydina Muhammad da ngay waare xoolal ni ko yàlla may ci taar xoolal ni ko ci dal xoolal ni ko yàlla may ci xam-xam xoolal ni ci yàlla may ci mën a jéggale Malik ibn Dinar romb ko ànd ak Aba Jahl Aba Jahl daal ni Malik ibn Dinar mu romb Malick mi daal waa kan ngay waar a fi Aba nii la fenkat nga bu mu la métti Seydina Muhammad moo ko njëkk a dégg képp kuy waar dégg a dégg képp a bi njëbarkat bi Malick mi dinaa ma naa ko laaj ñett su ma waxee ñett yi ma xam ne ki yàlla moo yónnee Aba Jalle ni ko bu ko laaj mu ne naa ko laaj Malick mi dinaa ñëw ba ci Seydina Muhammad ni ko yaa Rasul rasulullah seydna Muhammad ni ko labbayk mu ne ko bu si jiitu tàndarma bi ëkk bi def na fi ay junni junni at damaa bëgg nga sa loxo teg ko ci léegi-léegi ëkk bi léegi-léegi euh, samp léegi-léegi meññ léegi-léegi tóotul léegi-léegi mu ñor léegi-léegi ñu dagg ci léegi-léegi xanaa kooku mën ko bëgg a fenloo alaa limaa ne wal mu'jizaatu lahu ta'daadu abasun bu ñuy wax kéemaanu sidna Muhammad ki dee caaxaan rek mu ne ci ñaareel bu nga bëgg mu ne ko wool nga xar ko mu ne ko ba ci ñetteel bi ko bëgg na ko fenloo xoolal ñett yi ko wax yëpp ni mu doy waar ëkk boo xam ne ay junni junni junni at léegi la ëkk bi samp léegi-léegi tóor tóor léegi-léegi léegi-léegi ñu dagg ci léegi-léegi yàlla yebal Jibril ne nel Seydina Muhammad jox naa ko na jël loxo mu tedd boobu teg ko ci ëtt bi Seydina Muhammad jël loxo mu tedd boobu ci ëtt bi ëtt bi taxaw ci saasi jébi ci saasi meññ ci saasi ñor ci saasi Seydina Muhammad dagg ne bismillahi rahmaani jox gaay gaay commencé ñëw mu ne ko bi ci ñaareelu mu ne ko woon nga xam ko ñaar benn jaar leen yàlla la yónni beneen jaar leen yàlla la yónni yàlla yebal jibril ni neen Seydina Muhammad yebal weer bi jox naa ko ndigal loo xam ne bëccëg la nag te weer guddi lañ ko tàmmoon gis nag Seydina Muhammad joxal baaraam bu tedd boobu weer wi ñëw weer wi ñëw weer wi ñëw ba tiim rasulaay rasulaay xam ko mu jaar ñaar benn jaar ci ko te day yor ni ko ashhadu annaka la rasulullahi beneen bi jaar ci côté càmmoñ bi ni ko ashhadu annaka la rasulullaah ni ko bi si ñetteelu Moustapha ni ko mën naa la wax da am ñaari doom yoo xam ne seen tànk baaxul seen loxo baaxul seen bëti baaxul fi mu nekk da ngaa bare alal te sañoo sañoo nga tey soo deewee tey nga bàyyi rek seen alal yuuxu mu ne ko boo waxee ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullaah boo delloo da nga fekk ñu am seen i tànk aba Malik mu dinaa ne ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah aba jëlin tiit ba dóor ko mbéy Malik mu daan jubal këram alaaka muy yegg doom yi gàttagu ko ba muy dem daf yi ñu amuñu ay tànk waaye bu ñu bisee doom yi am nañuy tànk ami loxo daw di ko topp naan ko ashhadu annaka la rasul ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah maa ngi indi daal ne foo leen déggee baat bi ñu ne ko benn waay di rafet bët yaa ngi weex lool la ci waruñu ni ngi kukk ko waral noo baa yaa nga tasaaroo dënn baa nga yaatu maa nga rafet pàpp jëmm jigéen mosuñu ko ci biir mi mu dawal moo ñu fekk fii raay ñu ba mu ñu raayee ñu ami loxo ba mu ñu raayee ñu am tànk ba pare moo ñu jàngal baat yi di ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah maa ngi leen dinaa kontaan lool bég ci li ko Seydina Muhammad rek dañuy defar teraanga mu ngi ni ma koy yor maa ngi leen dina jël ay gileem dem jox ko rasulaay abaa jëleen kar giléem yi nangu giléem yi yóbbu këram gars yi Muhammad ni ko Maalik ibn Dinaar mayoon na la ay giléem mais Abaa Jahl nangu na giléem yi mu ñëw ci Abaa Jahl ni ko jox ni ko jox mu ñëwaat ne Abaa Jahl jox ma samay giléem Abaa Jahl ni ko jox mu ni wax Abaa Jahl jox ko jox mu ni ko léegi nañu woote si pénc ma gars yi àtte leen daañu xam kan moom giléem ñu woote fa huit heures ne ñëpp ñëw abaa jëli ñëw na sept heures indi gileem yi Moustapha mooy cinq yegg si la bi ñu yegsee ñu ne abaa jëli laajal gileem yi moo moom moom gileem yi moo leen moom gileem yi kanam ko woon waaye jékki-jékki sax woon ko ginnaaw mu ñëwaat ci kanam gileem yi ne gileem yi kan moo leen moom gileem yi war a a ko ndax bëgguñu koo xool ñu ne abaa jëli dama nga ca yar ca tey ga ca dal ga ñëw ci giléem yi ni giléem kan moo leen moom giléem yi ni ko ñun hëddiyee lañu jóge ci Malik ibnu Dinaar jëm ci ku yàlla bind di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne rasulullah moom giléem yi nga dégg gars yi faqiir la faqiir la léegi mën na commencé am xaalis parce que am nay giléem Seydina Muhammad rey giléem yi foofu te place boobu saan giléem yi ko jullitu yàlla yi nga xam ne koo koy Seydina Muhammad yàlla ñu yàlla may ci jikkoom yooyu yàlla ñu yàlla toppaloo si jikkoom yooyu yàlla ñu ko weer bi nekk di at yëpp atal la sax bi séet bi sëm la waaye yéen da cee raw moo tax nit ki ku ci mën dox lu na ci nopp bi ñoo ngi jégalu ñëpp di baal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu DG Tabarakallahu Salam Vision nekk fii ci bànnee bi di chaîne YouTube bi nga xam ne Tabarakallahu fi lañu faral nekk di waxtaane Seydina Mouhamed ak jikkoy alquran waaye fa tabarakallahu tamit di nuyu ki doon réalisé émission bi fa tabarakallahu di xaaj daam di la ziara di la balax di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala yàlla mën a jégal ñu ñu daane mukk di nuyu suñu sëriñ moom sëriñ Mouhamadou Moustapha responsable muxtafina fi asa abaa wal ajdaadi di ñu fàtt tabarakallahu Ousmane Si Dabaax di ñu fàtt Xalifa Ababacar Sall di sëf si Seydi Xaaj Maalik waaye duñu fàtte si xayib kay duñu fàtte ko tabarakallahu mboolem koo xam ne ànd nañu si émission bi alors gis nañ ko def nag waaye xawoon tawat rek moo ñu jàppoon waaye yàlla may ñu wér yàlla yàlla may ñëpp wér bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh